jusqu'à une date récente dama doon dégg beaucoup de gens ñu naan ah man de sama woyof bi su ma chargé 5000 mbaa 10 daf may yóbbu ba fin du mois mais depuis quelque temps euh, da ngay dégg complainte bi parce que usager bi ci ci ressenti wam rek lay lay lay lay lay lay qualifier euh, la la qualité du service. dama doon dégg lu bari ñu ne man de woyofal bi jëlal woyofal bi ba ñu commencé sax influencer yenn nit ñi ñi nga xam ne ils de grosses consommations ba ñu bëgg a dem jël woyofal mais le problème c'est que woyofal boobu sax épargné wu leen ko ndaxte boo jëndaan dix mille francs woyofal bi da ngay am cent euh, kilo kilowatt heure. Hmm. léegi dix mille francs boobu boo ko jëndee woyofal léegi quatre vingt neuf kilowatt heure ngay ngay ngay ngay am. Hmm. donc Senelec rocc na. onze kilowatt heure bi nga daan am ci dix mille francs bi lan moo ko lan moo waral loolu. de Senelec rocciwul dara. ah parce que Senelec amul droit amul amul jox boppam ay prérogatives rocc lu ci am mooy que ni et loolu encore une fois wax naa ko au mois de janvier les tarifs du Woyofal aussi ont été réajustés. dañ ko yokk. woy et Woyofal bi mais on a préservé la première tranche. loolu laa wax au mois de janvier ma ne les clients qui sont au niveau de la première tranche aussi bien pour poste paiement ñuy jot facture que ñu nekk ci woyofal ñoo ñu président def ne bu ñu leen laal ak lu mun ci demee te kenn laalu leen donc ñooñu seen tarif dafa buum lu mu nekkoon la nekk ba léegi. mais kiy jënd 10 mille francs ki 10 mille francs daan mat weer matatu ko weer est-ce que kooku déjà bokkul ci première tranche bi te malgré tout. Euh, facture am euh, nu mu tudd euh, la mu daan am ci Woyofal bi amatu ko. non maintenant loolu laa la wax ma ne la ku jënd dix mille francs daaw ak ku jënd dix mille francs ren mënul am même quantité d'énergie bu génnee première tranche bi mais bu nekkee ci première tranche bi ba léegi même quantité bu mu amoon lay amaat loolu mooy benn précision bu njëkk bi. ku daan jënd dix mille francs nekk première tranche quantité bu nga amoon daaw moom ngay amaat ren léegi nag am na loo xam ne aussi mu na souvent clients yi dañuy def erreur nit ñi dañuy ñëw ne ma waaw DG man 10 mille francs bi te loolu moo gën a bëri si ñuy wax man 10 mille francs bi cinq jours laa ko doon utiliser léegi 10 mille francs bi trois jours la may uti laa koy utiliser. ko waral. loolu mooy. le comportement de consommation di client xam nga man lan laa ko mën a garanti mooy que 10 mille francs bu mu jënd au mois de janvier ak 10 mille francs bu mu jënd au mois d'octobre su dee si si si début mois bi la wala su dee si même période mois bi la et dinañ si ñëwaat ma expliquer bu baax lu tax achat yi di changer même quantité d'énergie lay indi man soo ñëwee si restaurant nga jënd sa plat même na ñu jox la ko yow yaay xam mun nga ko lekk en cinq minutes mun nga ko lekk en dix minutes mun nga ko lekk en une heure de temps loolu ku la jaay kii bi amatu si pexe l'essentiel mooy ñëw nga ko nee nga ko plat bi laa soxla jox na la ko mais après pare na ci léegi nag souvent mooy lu may wax cette nouvelle culture énergétique te loolu dinañ si liggéey bu baax bu soobee yàlla parce que man gis naa ne c'est le mal profond bu am suñu diggante client bi te lum ñu jaral dinañ ko ci def ndaxte mënuñ def effort yu toll nii ba indi Sénégal fii mu toll ci wàllu courant ñuy nangu incompréhension bi yàq liggéey bi yëpp loolu duñ ko nangu.